merci beaucoup maa ngi tudd El Hadj Bassirou Sow ak euh, coordonnateur euh, mouvement national des arabisons kon tey fii ci Louga pour daje ak coordination euh, départementale bu Louga mooy les 17 communes ak seen coord ak seen coordonnateur communaux yi pour waxtaan ak ñoom ci ñaari mbir première mbir bi ci jiitu mooy xool naka la ñuy remobiliser waatee mouvement bi au niveau du département. xool aussi naka la ñuy waxtaanee ci jafe-jafe yi nga xamante ne arabisants yi ñu ngi koy jànkonteel euh, te ñëpp xam ko te yàlla dogal son excellence le président Macky Sall jëloon ci ay directives te directives yooyu mu ci jëloon ñun ñëpp constaté nañ ko directives yooyu noonu ñu ngi sooxee bu baax a baax a baax a baax te gis nañu ne aussi arabisants yi au niveau national am nañu benn représentativité bu mag a mag a mag a mag boo xamante ne kenn naattamle mu nuñ toll tey boo xoolee. boo jëlee trois ans arabisants au niveau national ku nekk coordination bu nekk trente personnes loolu euh, neuf mille deux cent membres la au niveau national tey am na commune yu fi ne am na maire yu fi ne gis nañ président mu ngi traité ak ñoom te ñun ñoo leen ëpp mbooloo fuuf arabisants yi ñoo leen gën a bari mais arabisants yi dañu constater manque de considération total ci côté gouvernement bi manque de considération aussi ci côté le président Macky Sall parce que directive yi mu jëloon le 17 Euh, septembre 2021 ne nañu xoolaat situation arabisants yi directive yooyu amul benn buñ ci appliqué. yii yëpp tey gis nañ ne président mu ngi dalal ñoo xamante ne ay association ay mouvement mais ba léegi dalalul arabisants yi ñun bëgg nañ ko laaj moom président Macky lan la ko arabisants yi def. benn la lan moo tax président mënul recevoir arabisants yi beneen bi gis nañ ne président mu ngi recevoir ay maires yoo xamante ne dañu gagné seen commune mais boo xoolee seen électoral ay 2000 la 1500 3000. te alors que arabisan yi boo dajalee seen électoral niveau national ëpp na ay dix mille ëpp na ay vingt mille ñoo xamante ne ay électeurs lañu donc kon gis nañ ne président foofu war na xoolaat ni nga xamante ne mooy taxawaayu arabisan yi ci foofu beneen bi ñun bëgg nañ ko ne président xam ne ñun ñun ay sénégalais lañu ci réew mi lañu bokk fii la ñu juddoo arab lañu jàng jàng bi nga xamante ne moom la ñu jàng arab warul tax ñu beddi ñu nañu ñu ci boole ni nga xamante ne noonu la ñu boole ñëpp nañu déglu ñu joxe suñu xalaat kenn mënuta a décider ci suñu xalaat wala ci suñu place dañu soxla ñun ñu jóg ñu ñu décider ñu suñu bopp lépp lu ñuy def lu ñu concerné ñu boole ñu ci. ministère de l'éducation nationale ministère de formation professionnelle ministère de l'enseignement supérieur directive yi ko président joxoon amul benn bu mu ci appliqué pendant un an directive yooyu ya ngi tëdd te conseil des ministres lañ ko waxoon te c'est une direct c'est une directive présidentielle président moo ne def leen te alors que ne defuñu. jafe mooy université arabo-islamique bi ñu waxoon ba léegi déggatuñ ci dara. beneen bi mooy waxoon nañu arabisants yi dañu am problème formation problème emploi problème insertion ba léegi da ngay jàng bi am say diplôme mais doo mun a liggéey. doo mun a def dara te depuis 2002 euh, école bi mu ngi génnee ay ñoo xam ne c'est des diplômés en arabe mais amul benn lu ci saafara en tout cas vraiment ñun ci li ñu jotagul gis ni am nañ ci déception déception bu mag lañ ci am par rapport yaakaar bi nga xamante ne moom lañ amoon ci président Macky Sall. arabisants yi tey boo xoolee au niveau national ñu ngi ci 9200 au niveau national chaque département lu mu dee de am na coordination boo xam ne vingt cinq membre ñu ngi ci bureau bi wala 5 membres wala 15 membres. 300 personnes ñu ngi ci suñu base de données ku nekk tey sa commune am nga fa 30 arabisans yoo xam ne xam nga leen ñu bokk ci mouvement bi alors que loolu président bu ko damaa yaakaar ne xamu ko wala demande d'audience yi ñu koy bind yegsiwul wala ministre de l'intérieur renseignement généraux yi yegg ñu ko ko donc yooyu daal bëgg nañ vraiment ñu indi ci ay saafara bu ñu ci indiwul ay saafara nag ñun wax dëgg yàlla ñu ngi préparé wu pour que si li nga xamante ne moom la ñu jëm.